jaajëfal tey jaajëfal tey sama gars um bon man la Mister Shake depuis Brooklyn New York del suwa tay beug len defal ben video si Sonko 2024 wala Maki 2035 bi mana joxe sama xalaat ndax Sonko moy nek président 2024 wala Macky Sall moo fi toogaat def troisième mandat di dem di wéy ba deux mille ndax Sénégal émergent plan Sénégal émergent Macky Sall loolu la wax Sonko moom dafa ne Macky la deux mille vingt quatre ngay jeexal loolu la Sonko wax waaye dañoo bëgg xam. ndax loolu mën na ne wala mën na gis nañ ne Afrique depuis ba nga xam ne Mali nit ñi dañoo yëngatu ñu bëri dañoo am yaakaar ñu gis ne nguur bi Macky Sall nguuram dafa mel ne lu commencé teggi tànkam ci yu bëri ndax bu ñu demee ba OFNAC di woo Mansour di accepté bokk plainte boo xam ne dañ ko jëmale ci Mansour Faye ci corona bi milliards yi ñu ko jox mu waroon ko séddale sénégalais yi jënd ay diwlin jënd ceeb saabu ak yeneen waaye dañ ne ni mu ko doxalee baaxul ku mel ne kii Marius Sagna di dem jooy ci kanamu OFNAC OFNAC benn kuréel la boo xam ne moom mooy xool mooy saytu képp ki nga xam ne da ngaa sàcc alalu réew mi te ngay liggéey ak Macky Sall di liggéey ci gouvernement boo nga liggéey ak Macky Sall nekk directeur général wala yooyu ñoom dinañu def. saytu bu fekkee ne dañu war a teg ndogal ci yow bi maanaam ñu jàpp la ndax da ngaa sàcc wala danga nga am loo def OFNAC moom loolu mooy loolu la loolu loolu lañ ko sant kon bu ñu gisee OFNAC def loolu daf ñuy jaaxal trop ñu woo fi Diop simple député simple député moom ñu jox ko ci affaire ceeb bi te moom député dañ ne boo nekkee député waruloo am beneen liggéey Diop si moom lañ fi gis ñu ne joxe na

Sonko wala ma liggéeyal ku mel ne Barthélemy Dias parce que gis naa ne wax naa leen ne man dama bàyyi makki Sall ba set ci wicc ndax man Sénégal moo tax may liggéey leneen taxul may liggéey ñu bëri ñu ngi naan ma lu tax ngay bàyyi Macky Sall ah lu tax ngay bàyyi Macky Sall xanaa sa ceeb tooyul wala wala wala lan moo tax déedéet man kay su fekkoon dama bëgg xaalis wala ma bëgg sama ceeb tooy damay wëy di ànd ak Macky Sall ndax gëm naa ne Macky Sall du fi jugee 2024 man loolu gëm naa ko bëgg naa mu jóge fi 2024 ndax moom moo ne woon du def euh, beneen mandat waaye man li ma jàpp sama saytu sama analise man ba ma nekkee Sénégal sax laa ko doon wax temps yi may ànd ak Macky Sall sax damaa gisoon ne Macky Sall du fi jóge lu tax ma wax ko bu doon daf fi jugee est-ce que dina tabax pale jam ñaajo gars yi wax leen ma yow yaa ngi fiy jugee ba pare di tabax palais palais bi koo koy tabaxal Ousmane Sonko nga koy tabaxal wala euh, keneen wala Mariam Faye Sall benn ñaar lu tax Macky Sall du fi jóge mooy ne Macky Sall dina dina wax jëfandikoo corona bi nga xam ne dafa taxawal lu bëri corona bi dafa taxawal lu bëri Macky Sall dina jëfandikoo loolu ngir ne nañu dàq élection woote bi nga xam ne mooy woote maire yi nañu dàqaat woote euh, député yi nañu dàqaat woote président bi nga xam ne 2024 la war a nekk te loolu man gëm naa ne Macky la mën na ko def ndax ñii wujjeeg moom dafa leen di nax di leen woo di leen wax kaa leen waxtaan li ñuy tuddee dialogue national kaa leen ñu waxtaan ñii ñu jox leen xaalis ñii ñu wax la yow yaay njiitu opposition Idrissa Seck ñu ngi naan dañ koy jox ñaari milliard yoo xam ne moom moo koy euh, toppatool boppam noonu la Macky Sall di euh, jëfandikoo ñi wujjeeg moom daal leen li ñuy wax réduire à sa plus simple expression mais Macky Sall li mu waxoon mom la def mom waxoon ne ñi wu jéeg dina len tutel, tutel ba ñu melni ne ay sànqaleñ dootu ñu am benn doole té Macky Sall lool la def légui légui benen li tax mané Macky Sall du fi juggé benen bi moy Mali du Sénégal Mali du Sénégal li ngeen gis Mali mu am fa ah wa France duñu sétane li am Mali am Sénégal lool sax bëgg na ñëwaat touti leneen lu tax mané Macky Sall du fi juggé mooy pétrole bi mais avant sax may ñëw ci pétrole bi mooy jam ñaajo jam ñaajo bi nga xam ne Macky la moom mooy li ñuy wax fiertéem jam ñaajo mooy mbégteem ci jam ñaajo li ñu mën a xam ndax Macky Sall président bu baax la bu ñuy fàttaliku ci Afrique comme pharaon yi ni ñu daan def di tabax ay pyramide ak yooyu Macky la ci la ñuy xool waaye gis nañ ni jam ñaajo bi dafa taxaw te fii ak ñetti at Macky Sall mënu ko fa eggale loolu nag moo tax ma ne Macky Sall du dem 2024 beneen bi ma doon waaj wax léegi Moy, pétrole bi musu len gis dekk bu am pétrole lol, xaliss bu beuri ay milliards milliards milliards nek ci nguur gi pétrole bi gennugul sax mom mu ne day dem lolou bu len waxe ne Macky Sall day dem da ngeen di nax sen bop Macky Sall du dem Macky Sall du dem Macky Sall du dem gis nañ armée bi sax Macky Sall daf len outal ay auto yu bees outal len ay jumtukaay ngir xex outal len li ñuy wax ah, gaz lacrymogène ah moy saxaar si nga xamne buñ ko sànnee mu dugg sa beuti ngay joy mu jox leen ay liif policiers yi takk der yi mu dooleel leen ngir lan képp ku fi génn di kaas dinañ la duma gis nañ nag ay ñu mel ne caat di wax naan 2024 moom ci kaso bi la koy fekk ndax du seetaan Macky Sall ah mu dem ah, mu def troisième mandat waaye caat li ma bëgg nga xam mooy boo sàgganee loolu noonu lay mujjee di nga dem ci kaso bi te du tere Macky Sall ah, am troisième mandat ñun nag. anduñu Macky Sall man dama leen wax ne bayina Macky Sall waye dama xamne nguur jele ko fi yombul kon Ousmane Sonko ndax meun na nek président 2024 même bu fekkene Macky Sall dafa bàyyi bu fekkene sax Macky Sall dafa bàyyi Ousmane Sonko mom kesse bu fekkee Macky Sall dafa jël keneen tek fi ko xamne mom moy xexal APR koku dinañ ko dolel dinañ ñom ñoy élection ñom ñokoy euh defar xam nga ci sen loxo la nek kon ñom xëy na mën na am ay njuuj njaaj yi ñuy def wala xam nañ fu ñuy jaar bokk ba gagné élection yi lu tax ma ne Ousmane Sonko aussi pour mu nekk fii 2024 dina métti mooy ne ñuy wujjeeg moom dañu dañoo ñuy wujjeeg Macky Sall Sonko ci boppam nee nañ léegi au lieu ñu wujjeeg Macky Sall wutee wujjeetuñu ak Macky Sall ñu ngi wujjee ak Sonko maanaam l' opposition s'oppose à l' opposant Sonko ce qui est bizarre loolu nag dafay gën a wàññi doole Sonko ndax Sonko bu fekkoon ne nit ñi defal Macky Sall ñëpp ci 2012 ba ñu fi jëlee Ablaye Wade ñëpp dañu ne ni ñëpp wooteel Macky Sall waaye opposition bi 2024 ñii ku nekk sa bopp ngay demal Bougane day demal boppam sëgam dina am parrainage ah Idrissa Seck day demal boppam ñoom Dokoura nekk ci ginnaaw sa Seck Sonko ñu koy jéem a xeex loolu tax ma ne Sonko tamit pour mu nekk fii 2024 euh, dina métti. beneen beneen bi mooy Sonko ñu ngi koy fexeel ñu ngi koy fexeel ndax gis nañ fi Djibril War bi nga xam ne assemblée nationale la nekk nee na Sonko dañ ko war a génn ci élection yépp Sonko waxuma la sax. 2024 waxuma sax président même maire Ziguinchor xam nañ ne buñ ko defoon tey Sonko mooy gagné loolu dinañ fexe ba am na nu muy demee ñu fexe ba génne ko ci ndax Djibril Wade nee na dina am benn atte loi bu muy dugal assemblée nationale ndax Sonko daf fi nekk di saaga di wax lu ko neex ah ba pare dañ ko dàqoon ku ñu dàqoon waruloo nekk waruloo mën a nekk président mais waxu waxu ndax sa xandak la ñuy wax xaw waxu ko daanu si saret ndax Sonko dàq nañ ko ba pare te terewul élection yi passé bokkoon na léegi nga bëgg indi beneen atte ne dootul bokk loolu waxu ku daanu saret la mais loolu yëpp nguur kenn mënul xeexam moom man sama papa daka daan wax sama papa ba ma ñëwee di ko wax damay jàppale APR loolu la mu wax te sama papa mag la billaahi mu ne ma booy ànd àndal ak nguur kon nag Sonko fi mu nekk nii dinañ ko fexeel am na nu muy demee sax du bokk ci élection yi voilà région yooyu nag moo tax ma ma ne yéen ñii li am Mali dama gis ne am nit ñu bëri yoo xam ne dañoo excité man bu fekkoon ne xaalis ak laay ut billahi wallahi taalahi du ma bàyyi Macky Sall billahi wallahi du ma bàyyi Macky Sall ndax jël naa sama trois millions def ko fa su ma continuer woon rek nekk ci internet bi di wax Macky Sall lii Macky Sall laa Macky Sall lii Macky Sall laa yàgg yàgg ñoom dinañ ma gis dinañ ma xàmme xam nga te bu boobaa bu ma delloo Sénégal bu ma leen nee eh, jox leen ma post wala jox leen ma xaalis wala defal leen ma lii bu fekkee ne xaalis laay ut mais man defuma politique yur loolu. 3 millions yoy ma def ci ñom Macky Sall sama gox la ko def HLM jàppale len ñu gagné HLM musuñu gagné su ma bëggoon sama ceeb toy damay and ak Macky Sall mais li tax ma and ak Sonko parce que dama gis ne Macky Sall da fay waja sank Sénégal ndax boru juróom-ñetti junni milliard bés bu nek ngay fay ben milliard te milliard bobu lestek la lestek loolu mo gëna li Macky Sall def yépp loolu mo ci gëna yes moy dafa lebal lebal leb ba pare man li tax ma bàyyi Macky Sall li taxone ma ànd ak Macky Sall rëccuwuma ko de ndax bama ñëw Sénégal dama gis mu défar mu commencé mu tambali TER tambali BRT ma gis mu euh Ila Touba waaye Ila Touba bi gis nga dafa taxaw TER bi dafa taxaw BRT bi ñu dañu biang ba Mali bi yëngutu ñukoy dogo yëng ñukoy dogo euh euh doog a mu défar autour à péage Macky Sall défar fi du bëri bëri bëri bourse familiale même juroom yoy muy jox. Euh, euh, néew di doole yi ñetti weer ba ñetti weer bu leen ko xeeb yooyu man moo taxoon ma ànd ak Macky Sall ba pare gis sama xarit Mamour Diallo moom di jàppale Macky Sall ma gis muy tabax ay juma ma gis muy tabax ay tali ma gis muy dimbali ay jigéen di leen lebal xaalis bu dul jeex ah jigéen yooyu dem ba def ko mu nekk ay 200 millions ma gis Mamour Diallo ndeysaan di dimbali ay jigéen ñu leen ñuy def consultation gratuite xoolal leen seen weeni loolu yëpp ci APR laa ko gisee. waaye ba ñu votalee Macky Sall 2019 ci la bàyyi Macky Sall ndax atu yàlla avant corona bi di ñëw avant corona bi di ñëw Macky Sall defatul woon dara dara dafa toog rek gis nga ba ma mënd bi ñëw nga toog di dégg ñu naan su Pape Alé Niang wane ay image yu ñaaw ci géej gi littoral loolu metti ma lool ma gis mënd bi mu metti ma ma gis euh, Ndingler nu ñu nangoo seen suuf mu metti ma ma gis Tobène mu metti ma ICS nu mu def di nangu suufu jàmbur ma gis leneen laa gis ma gis gàddaay nit ñi di wax ndox bi orange di wax ne nit ñi di kaas ndax orange dafa yokk euh, téléphone bi euh, euh, Senelec Akile doomu Sénégal ñu bundu xataal ko nangu contrat bi ci ñoom jox ko ay ay yëwut ay israélien ay juif wala ñu jox ay turc wala ñu jox ay chinois loolu nag laa gis ba pare li ma gën a métti mooy Macky la dafa dafa toog rek ne xaalis amatul léegi daal nañ ñu baal na tubaab yi nañ ñu baal suñu suñuy bor léegi loolu mooy politique Macky Sall tubaab yi baal la ñu suñuy bor mais bor yow yaa ko leb yaa ci war a defar ana cinq mille cinq cent mille emplois yi mu waxoon daf koy euh, utal liggéey xale ah juróomi téeméeri junni liggéey yi mu waxoon pour xale yi Macky dafa ne woon compte deuxième deuxième mandat bi pour xale yi la mais loolu yep nak man motax ma baye senegal kon baye len di dal sama kaw di ma wax oh ya ba yaa àndoon ak Macky Sall dug fi mais Macky Sall dafa liggéeyoon commencement bi mais legui liggéeyatul loolu tax nak ñun ñu ne Sonko lañu gis way Sonko bu yaakaara ne day ñew rek jël pouvoir yeen li am Mali motax ñu bëri daal di sen yaram tang ñu excité nga gis ay bugaan genn ak ñepp genn parce que li ñu gis Mali dañu yaakaar ne Macky Sall day dem Macky Sall demagul demagul France du setan li am Mali am senegal Mali ak senegal ben Mali dafa mu upp senegal ñent yoon xam nga Sénégal fii armée française mi ngi fi takk der tubaab yi ñu ngi fi duñu ko seetaat même Côte d'Ivoire gis ngeen Ouattara bu jàllee Guinée Alpha Condé jàll Macky Sall day jàll gars yi bëgguma vidéo bi gudd lii benn tam la boo xam ne dama ne il faut ma ma ciy wax pour ngeen bàyyi ci xel ne Macky Sall dina fi toog te leneen lu tax mu fi toog mooy ne sénégalais yu bari dañoo ànd ak moom sénégalais yu bëri dañoo xiif dañoo nekk ci ndóol waaye bu Marème Faye Sall génnee joxe ay junni wala mu euh, ñu ko gisee rek ku nekk commencé wax sa délaance fàtte fàtte Sénégal loolu am ñu bëri dañoo ànd ak Macky Sall ñu bëri jànguñu ñun ñu nekk nekk ci réseau yi bu ñu gisee vidéo yëpp di dal ci Macky Sall rek ñu am yaakaar ne def koy jógee wala li am Mali déedéet dañuy nax suñu bopp dañuy nax suñu bopp il faut que ñu nangu ne opposition bi bu ñu wujj wujjeeg Macky Sall dañoo bëri te ñoom ñu ngi waxtaan ak moom ñoom bu ñu nangoo ñu def référendum wala ñu changé wat constitution bi wala ñu dugal assemblée ay loi daal di tëj Sonko wala ñu dàq Sonko Sénégal yëpp seetaan si sëriñ ñi ànd ak Macky Sall ah ñi nekk ci ci ci ci gox goxaat yi sore yi nga xam ne seen jàng sorewul ah ànd ak Macky Sall mais loolu ñun mënuñu ci dara il faut ngeen bàyyi ci xel il faut ngeen bàyyi ci xel bu bu leen def ne rek li am Mali am na rek Macky Sall daf fiy man foofu laay waxee jaajëf